ministre aménagement nag ak habitat moo dem rek nemee ko ji nag gox yu cité Maris jàpp rek kon bu yaraax nag dëkkuwaay yi ñoo gàllu ci rek ay rëq-rëq nag ginnaaw nag ba ab dëkk rek dogale woon ñu yëkkati fa nag ay rek kër ci wetu seen parc forestier bi mu nag ab gëstuk dossier Ndeye Arame Touré et Pape Samba. mars bi jàll jëwriñ bi ñu dénkoon wala urbanisme ci nguur gi fi jógee dafa autorisé woon ay nit ñu mën a tabax ci benn bërëb bu nekk ci wetu parc zoologique bu Hann te foofee dañ ko jagleel yenn këru liggéeykaay yi ngir ñu amal fa yenn installation dogal boobu juriñ boobu jóge fi jël daf ko defoon te yëgalul direction bi toppatoo wàllu urbanisme ak architecture loolu nar a gàllankoor mala yi nekk ca parc Hann ministre bi nga xam ne dafa yoroon mbirum urbanisme dafa toog ba ñu ni gannaaw suba la wote àjjuma nga xam ne ci la semaine biy jeex mu signé benn euh, kayit bu wane ne benn arrêté maanaam euh, bu ñu ko doon jéema a nataale neneen dañ naan décret wala dara mu signé loolu pour que fii ñu jox ko ay nit. fii ñu nar a joxe ñu dëkk fii mi ngi dend ak parc Hann kenn ku nekk xam na ni am na ay bàyyi ma yu nga xam ne ñemewuñu torop nit ñemewuñu torop ay bruit ay yëngu-yëngu te park bi fii dafa dafa sës ak moom. bu buñ ko fi defee xëy na dina am ñu tabax dina am ñu yëkkati étage dina am ñu tëgg dinañ tiital kii te kenn ku ne xam na ni fii daal moo des ci ndakaaro fu nga xam ne nit mën na jóge këram ñëw toog ni damay féexlu dama bëgg gis garab dama bëgg gis bàyyi ma. jëwriñ Khoudia Mbaye ci nemmeeku gi mu amaloon ci commune d' arrondissement bu Hann bel mu ne daañu annulé décret boobu ñu xaatimoon ci diggante ñaari tour bu élection présidentielle bi. ci gis-gisam projet boobu buñ ko taxawalee daana sonal loolu mala yi nekk ca parc Hann ay yar équipement daal maanaam laa ko mën a waxe foofu loolu lañ ko loon ñun jagle boobu dañoo yaakaar ni mënagul a dañ rawatina nag ma fiy gis ay garab yu ngand yu rafet mu nekk àll bu nga xam ne dañ ko war a defaraat suuxataat ko delloo jag delloo ko jagle ba ñu ko yéene woon loolu moo gën ñu naan dañu ci fajal ay aajo yenn nit bàyyi ñeneen boo déggee ñuy wax lii nag newuñu dañoo yàqal kenn newuñu dañoo contre kenn président Macky Sall ak gouvernement am dañu ni ñu rek moom xam na ne wala ñoom xam nañ ne li leen fi teg mooy askan wi xaar ci ñoom jubbanti xaar ci ñoom defar ba nga xam ni noonu lañuy taxawe xaar ci ñoom yokkute ba nga xam ni loolu la ñu war a taxawee te service bu nekk ka fa nekk nee na la bàyyi naa la ak sa sago lépp lu nga xam ne dafay defar foofu lu jëmale askan wi kanam teg nañ ko ci sa loxo nga avancé ba boo sësee nga ñëw wax ñu ni sës naa moo tax tey ñu yëkkati woon yi tànk pour lépp lu nga xam ne gis nañ ko fi awul yoon ñu ñu jéem ko cee ñu jéem ko jubbanti ca la ñu tollool la ca des ñu egge ko ko lépp lu nga xam ne gis nañ ko mu rafet ñu euh, ñu ñaax ñi koy doon def ñu continuer ci loolu. yeneen i bërëb it jëriñ bi ñu dénk wàllu habitat visité na ko mu bokk ci ñaari dex ya nekk ci cité Mariste ay plan d'eau yoo xam ni ay garab ñu ngi fay sax te lu ci ëpp nit yi dañuy agressé dex boobu ay ndox yu salté dañ koy sotti ci dex bu ndaw bi loolu tax yooyu bëri fa lool. mun naa ne Euh, donc euh, ci cadre liggéey bi nga xam ne moom nañu bëggoon a def en tout cas ak euh, ministre de l'urbanisme moo doon vraiment prise en charge bu demande bu population yi pour que vraiment ñu jàppale ñu ci wàllu defaraat cadre de vie bi mu gën a rafet mooy maanaam aménagement lakki mais également defaraat donc jéem a seet ni ñuy tabaxalee en tout cas ay ay terrain bu ma nee tabax mooy ñu utal ñu espace. beneen jafe-jafe bu waa commune d' arrondissement Hann Bel-Air yëkkati mu di ñàkk bërëb bu xam ni ndaw yoo nekk ca Maris dañ fa mën a jànge Maris fi mu féete tax dem fa day jafe lool. beneen point bi nga xam ne aussi euh, boolewaale nañ ko ci mooy projet lycée ak collège. umpale leen nag Maris doon dëkkuwaay bu am solo tey. Euh, boo doon xayma peut population yi ñu ngi ci plus de cent mille habitants mais boo doon xool équipement public boo xamante ne am na fa euh, mun nga gis nekk dara am fa comme comme équipement public. jëriñ bi ñu dénk wàllu urbanisme ne fas na ci ndimbalu technicien yi yor wàllu aménagement urbain soobu ci jafe-jafe ji. beneen bërëb beneen décor ca yaraax xataayu mbedd yi tax na ñu war a toxal yenn kër yi ab projet restructuration tàmbali nañ ko fa. yaraax nekk dëkk bu xat nit ñi xam nañ ko. pompier xam nañ ko ambulance xam na ko euh, yeneen service yi soxla dugg ci gox yi xam nañ ko donc mu am benn projet bu nga xam ne euh, fondation droit à la ville ak Lamine Diouf ñoo ko yor union européenne dañ ci jàppale ñu taxaw taxawal ko pour que noonu ñu teggi coono teggi xat-xat population yi nga xam ne ñoo dëkk ci gox yooyu am na benn terrain bu ñu gis bu nga xam ne laaj nañu ñu jox ñu ko ñu delloo boroom euh, nda dàmp ko pour que ñu mën fa dëkkal euh, li nga xam ni bu ñu leen yëkkatee ci tali yi ñuy xàll ak yoon yi ñuy sàkk pour mu mën a yóbbu ndoxum taw mi pour que oto yi mën fa jaar bu ñu leen yëkkatee foofu mën leen teg foofu sàmm patrimoine parc forestier bu Hann soxal loolu makkanu jëwriñ bi ñu dénk wàllu habitat ak urbanisme ay jéego daañu ko amal di ñu leeral jëwriñ gii di Khoudia Mbaye te jéego yooyee daañu ci boole aménagé waale dex bu ndaw bi ak it yaatal koñ ya nekk ca biir yaraax